acca gaay tout du cas grand enfant waaye ke meke grand dedit waa Sarr TV waa Sarr TV nag den na organiser me kon dogu maak dedit dedit dum meke xane euh, fas waxtaan fa den anda me si kanam euh, mbaam ay ndok kam dedit na ma moftu njeetaay fa den acca gang muy gaaw zeng sama caméraman ndet kam mooy loolu acca gaay siyaare yaama nun begee nuuna i kay meke grand yof dedit waa Sarr TV eh, organiser on maak nag ah, grand simnaawum maxey jaknang ziarne a paax a paax euh, i golle mi Amady Thiaw Amady Thiaw Amady Thiaw waaw grand Amady xa waralu euh, teewaayof meke na grand yof euh, a teewaay ne manaam mhm. Sarr TV yo Sarr TV refu groupe la andoona yee ka ref gajar naana mhm. ten tax i mbaxto me i ngen na mhm. ndoko xaña in ngariid ne Grand Yoff mide kam santetinen roga pah mhm. ya ko mono zar tv mhm. yam rokam na kurupa mayu mhm. nda gege mana zar tv manam gi eno mo mbiño lakas kon manam mi sante a roga pah to layaye zar tv jika kaw ci kanam ci lu baax i yasam geke imbu imbia, yasam teref kaga namal ka in e, go kina bugna ten e, yasam teref kaga namal kan e, go kina wida ten to hitam itam yasam roga ha yobnal ngo na barkina tulero he e haalay ka we zambro tv andu ka ngara bo meke am maɗani ɗum beste waaw gidma den rek e ginaaw rate ngarna a mbudanin in besne e manam kon waaga i njege ndabid den e maxey inoorna bo wakaam e garid grand yow ngir sar tv e o fogole koy ngirid na meen a madid manam ngir sar tv xooytina i sante ingo ten bo paam roog e eh, ngeɗe a cafa guete kino tiname ten mbaxtina mhm. eh, yasam roog yaloxe rabid den a cafa gaga mhm. e eh, mete njaga itam yasam roog yaloxe namit den bo mate mhm. kon merci beaucoup aca gaay bo fa ndiik i kay meeke Grand Yoff maada nit wa Sarr TV a organiser a maak nak i mbey fi kilifa ke mbaxtaana fa den grand simnaxum jaba golle mi yo dawde de anede no saltige saltigue fisel mbaɗan saltigue fisel mbaɗan eh, saltigue fisel mbasan mbaɗan ha waga luf tewawi of meke na grand teways me ten ref ye kan fog no sar tv mm-hmm. e eh, yona foden no calel ke e i ñowa jaam mm-hmm. ñowa teranga mm-hmm. bo bes feke ke i ndamine ka i mbiya men dogu fogole fop fo yonale fop ngar meke en une in une i mais ken ten waralu men te wais gar garmen comme kilifa mm-hmm. garmen men comme kelfa ken ɗicidam mene mais nous we sar tv nam nu ñowta entre euh sar tv o ɗetangan miñafule mais vraiment ni i ñowta no kata juf cer parce que o xey rek a laltan o xene ndeke in genu to i miña i nga are an o ingo i tire. o xaana poog fapes o o xaana xartes o i miña i ande xaye xaye xaye i ngetna rek mayu kon inwe way jam in way teranga in way ñoowa ndigil koy no ndigil ñëw na ndigil in way fo xu waageerna ñëw warta xaƴa in i kam faley wo leye o refu saltige fi sal daan en tant que saltige <laughs> o homa da wala o na gag na mafika buga hamadaw eh, mbatta bugo garme nami xeja kanangiro suivre actualité keme kaga amaya numéro ke way kama ah, non mi mom euh, franchement parler njuumange fiyame wo gum adingen sengo gala ah. o fiyamana tikoge am fati o tik me <laughs> ah non mi mom madam fudam ah, kana ah numéro est ko ya nanginuma cot tandiki mi wa codit adresse adresse of manam mi genona adresse fe tamit men fe a fa men yonga nanginuma anda heure hu refna rek fama inno eyyi eh, comme kebbisiɗo hama sujet fe ten refo kene fatiɗayna ken kono merci beaucoup en guiɗma ok jejam acca gaay bofandi kan key meke grand of an om dakna um siminne e gonle ablaye mm, eh, grand ablaye ha warlu grand of eh, ke waranna tewas jam taref sar tv Eh, daal eh, te ref wiin wa andoona yee mhm. wiin wa njegna coom a ndef mhm. i Cheikh Sarr mhm. ten ɓek xam na Sarr TV eh, i ndef meen ñoowa mosu bo roog a fokata in xane i tewo meeke in fop xane mbokatooro pour ando pour xaye quoi i ken waxalu teewaayof xane so ndiig ne xa lay ka wa Zambro TV fe ando ka ngara bo meeke a maadani nuun bes fe xaƴa ngidma nu rek sante a nuun tona naa nuuna suñu borom mhm. no an ken mbug na paax karoga yala fi'an na nuun mhm. yaam vraiment nu mhm. mbogan wena ñaƴña nu euh, mbogan wene ñaƴña wene ñaƴña aada daal wene ñaƴña aada nu mbogan nu mbogan wene i kon nu mbara nu mbara sante'el ngidmel i njokela njal daal to ñana nena suñu borom daal nuun an ken mbug na mbamir nuun yala xo fi'an na nuun merci beaucoup Acha guys, mbey meke na grand va madan di wasa TV de organiser ya ndogu mak. Ing mbey meke so men kiliva ke e, fi a grand ke fa sene mbartan wo den grand simnaw. Wa simna gono fo simna. E, e gonle? Mohamed Thiaw ne. Mohamed Thiam. Ah, Mohamed Thiaw. Mm, grand Mohamed. Ha baga lute wa fo meke na e, na grand fan ne. Ayona le ayona ayona musulo sa TV ayona. Mm-hmm. odega jiga sol trop jenga mbekte tangeno jenga nakatangeno aduna ka im layong jiga million xana im layong jig wiin rek ten ko solo wax de saate borom ba fop tewu mo nan ra wax de doy andre de en fop bogu le jiye ka refe no pogum da roog rek saate we kaw ca kaw ca kanam ci lu bax roga dem tay ni fop so ndik ne Haleka lay ka we zambro tv anoka angara bo meke amara ni non besse beste a pour caméra na nun beste wala zambro tv rek daareeg rek yasam seenun a ramb télé tela télé ken seentuwa teen yasam roga ci rogaam roga fi'in merci beaucoup ay bo fa ndiik i mbay meke fi kilifa ke fas yéene waxtaan wa den no ndogu nge de organiser a meke na grand euh, yoon ten fe wa Sarr TV euh, grand simna om na jaɓang e, gon le Ablaye Gning grand Ablaye xa euh, waralu teewaayof meke na grand yof ke warul na mhm. Sarr TV mhm. bokatoro toro mhm. njalayo ngoytu mhm. riño mbi mhm. o meno ndogu pour mbaga andro mbaga mbaxtano mais eh, star tv namnu ñowta entre nun parce que yakaram mais star tv lanu na dal famille yo waaw ni i mom moom a compliqué a compliqué air ne iyo no yo'nooxaayo ne cosaan en plus oxum jigna teen ngente i participe o universar tv pour ndamtongo ten besanaawo o jig bat Mm-hmm. encore naga mm-hmm. wax dëgg neex o jigambo yitam mm-hmm. i mbi'an go social tv moom yaal fula yaal jom waa njig ne yëg yëg waa mbel wax dëgg neex teem ge um ne tv waaw njig xa layka we Zambro TV e anno ka a ngara bo meeke a maade ne nuun besse waaw ñaana na nuun rek nuuno itam xeɗa roogo yaaloxe fi'ano nuun dundata bo gen sen toxayo ten roga fi'an no nuun télé nu ndef xa teɓaxa andoona yee itam ne gen mbi'aayo il faut muño parce que calel moom u muñ góorgóorloox e xeɗa roog o yaal te damtang parce que ginaaw roog dara refee me fop diiseen no roog o yaal kaga dal tem ñanana nuun mhm. xeɗanano nuun nen ngarti nene nu ngalatno nen fa jaam salaam merci beaucoup i ngidma merci beaucoup aca gaay bo fa ndiik i mbey meke no Grand Yoff made ndiwa a gon le Moussa mm. grand Moussa Fall eh, eh, grand Moussa Fall xa waralu teewaayof meke no Grand Yoff TYS meɗen no Grand Yoff heƴa imbocateur waralu keke no Sar TV waaw wax dëgg soɓ men itam kilifa kam fe mm-hmm. wa jeg na yeg i ngota maya laam kam fe ɓekaam kam um refo ndeɓ kam den ten wax deg goorgoorloox xa nanana den i wax deg ngasir jeye teen xaƴ ka jeg na waxtaan o ɓor waaw den daal we ñaaƴa ka normal na daal ndiig ne ka we Zambro TV fe a noka a ngara bo meeke a maada ndim bes waaw Zambro TV xaƴa sala na den ñaan na den rek o wod c'est mhm. la première fois haƴam famir fa den waxtana fa den mais mhm. nak eh, bugam te ref fa cafadak ba cafatatak mhm. wala bok xeja semaine nu refna sam waga nanir fa den ndax c'est la première fois bok manam wamu lay den ɓekam no radio layim no radio saxo leng c'est la première fois na tv mais nak content continuer apa? paax merci beaucoup very good. Everyone say again, Adi. No? Yeah. Yeah. Thank you. Payá para. Mira, không nắm nữa. Nó sự. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mm-hmm. I broke a girl.

Keden bulim bol. Wadi ka kinan dir ko murgani. Akasa nda. tojjuwale mbagina pangole acha gay bo vandika ike meke grave euh, yon fo wasa den na organiser ame kon dogu mak imbe meke nak na mbale ha eh, soɓ meke yaay ke fitata ke eh, soxna si se nuy na la ma lay fay euh toubi senabu senabu cior senabu cior mm. senabu cior ha waga lu tewa fo meke na ndogu be activité organiser a en tout cas daal ndogumi a mosa de a mosa trop mhm. to ke taxna bo yitewome ge mhm. euh, Cheikh Sarr parce que Cheikh Sarr o kiin ino paax a ref mhm. a yega kiin aussi parce que ke o ɗom na ke o adama xaye o yeganga wiin we rek wiin we o jeg ka xaalis tamit jeg wiin ten moƴu i kontekel warul tewayo ofumeke dala ah kaka warul tewayo ke san vege we nakumbe na so kene ke pombitere we wala mi mo na pombitere ve mm, ah me o kam vi eh, o chine o chine chinye oke mi i chine chinye e <laughs> e ah, re humre humre naname naname jire je mbaye njawde ambaga njawde juwala e mbageru njaw kon boy chung bote bel iyo acha merci beaucoup ah, acha gay bo vandi kan ke na mbale de so men tatake mm, mama simnaum Diabaaxum. madame Thiaré ah. ah madame Sekou Thiaré. Diabaaxum madame Sekou Thiaré xa eh, waralu teewaayof meeke na eh, ndogu fe s'activer organiser a waa kontaan teen rek mhm. to jeg teen o ɗaayo maak mhm. yaam xaye waagaam o lay fop mhm. Cheikh Sarr o e eh, ten ga'u kores a bugin to roog a tax a bug jeg na yit mhm. parce que keek de mbi'ran mhm. a xeƴa o mbiño lakas mhm. a mbaag'aan o mbin mbin lakas to mbitiran maaga de lay fop a cooɗaan a seeku caare ta ref a kores mo xoo gidman tamit to yaakaaran Eh, leyaade ne Sarr TV daal ci mm. kaw ci kanam rek mm-hmm. i na trop to teno ɗaayo maak waay mm-hmm. kontaanam vraiment mm-hmm. e Sarr TV yonta nga vane ya jey e Sarr TV yonta nga vane ya jey je mama ko ɓeeg na kim njom wala wa fiyaama kim njom mais a goɗa goɗa fule o ndeɓanong refum tamit e ko doora neke rek xaye ku waaguma ɓuroɗ fa mari jon war mari jon war o cigen seeku caare deno mbogu saate mhm. aha mhm. xaye yen refanga na tollaxes roog fo kiino xaaga taxu mhm. kon ku waaguma fiya rek waaganum o gidin teen mari jon war gidnanum a paax a paax to jeg no ten yaakaar to heɗa ma tewo ya yasam roga inninna jaam accoɗin mm. taneya paaxa paabote ɓaat to no yite um mm. kono ana me i payanga eh, wasambugu tv tamit ano wogna den eh, ano gimana den <laughs> ya i parina ano gimana wasambugu tv a a kaga low de mais mm. xaƴa i njeem rek wa ano ceena kimal leng a wa jege problem merci beaucoup madame Thiaga eh. ok wa merci beaucoup aca bo fandi ka i mbeyna mbaale de waaw i mate ful na mbaale de i mbey neke madame aussi madame sim a ah, mademoiselle <laughs> ah kon kon kon andame balay ngaɗa ana ref madame eh, mademoiselle nuy naal wa simnaw hmm, golle Fatou Ndiaye Fatou Ndiaye Fatou Ndiaye xa waralu teewayof meke na ndogu fe Sak TV organiser a waaw ndogu fane moom i moom na Sak TV foom quoi Mm-hmm. aɗa fo groupe lawananga mo machallah ndeno mm-hmm. fa bonnanra mm-hmm. ambo ko yaafi fab fa ko respecto yonum dal so haalay ka we zambo tv anuka ka ngara bo meke a mbaɗani nun wa we zambo tv mo machallah na content ten dal sallana num feɗamo tike continue bo abadan dal ñaan nanu rek taka kaw ca kanam dal merci beaucoup ngin maam len affaire ginaar yi salat yi ay xeetu baax baax yi ah oui aca jël leen affaire yi femme yaa nekk noonu si waañ bi eh, dañu nange mandat tige ci xaale quoi ah ak sama grand Pape Sarr borom Sarr TV ak beneen caméraman bi Zenga borom Palmarin aca gars yi jël leen yi ah. waaw salade bi <laughs> yu baax yi ma ne yu baax yi ah. ah yëfu njaayee nii <laughs> wala wala yëfu saagee nii de ah aca ah, <laughs> boog ɗiga i mbayna mbaren ne ɗeetid yaay ke i njopik mene nak fa madame fa leng madame simnaam <laughs> waaw man masel simnaam moo delloo am hmm? simin ne i mm-hmm. eh, golle Fatou Sarr hmm, Fatou Sarr xa eh, waralu teewaay meeke na ndogu fe Sarr TV organiser a waaw <laughs> ndogu ne de moom mm-hmm. wax dëgg i invité invité me in fop Sarr na Sarr daal i ñaaƴaa ino eh, ino gidma nuun na paax to mhm. ñanana nuun xeɗa nu jeg jam mhm. a barke seydina mohamed mhm. na, ngokononge te jopetuna ino momi contana trop fop a mota daal machallah mais la euh, we yoɓnoxana kim est ce que waxa ciya we euh, sag tv wala we tv a kim non non mi koy naagim o gima moom wax dëgg fa yàlla ah. oh, aca bo aca bo merci beaucoup ok merci beaucoup jërëjëf okay. <laughs> <laughs> Ah, alaani ko jega o gognino mi non non célibataire ah, a fum célibataire fo wo buyeego walla mi no bugaam xeyna roog ten dogal xa xeerun rek hmm. ah. wal ni kooka xa non non sax mais hmm. bugima bugo rok daal to roog daal fiya xa daal kaaga yo o leng ngega xa kay wiin we bo ngara wax dëgg fa yàlla moom kooka xa wena ngara den bugeerum rek hmm. i kon yasam o jeg wa bugoona amiin yaa merci beaucoup ಫೋಟೋಗೆ ಹಾಂ ಜಂಗಮಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಜಂಗ ಬೋಳ ಬೋಳ ಅಲ್ಲ Hey, make anybody work. He come Hmm? <laughs> ah aca gaay ke ina dege sachet neke madame ke den na ɗapa neke quoi i ndogu grand à sac avec sac tv Aku? Aku buat? Okay. Okay. Ah, kan nana mo zoom kan ko. Zoom bo ko yo. Eh, bano sokati rohom minyo lende. Bano minyo lende. Sasiyo me. Hmm. ah suma gay euh dañu wax ne kat mbam gatna na ci jurgi la bok comme rewé mom dañ def umen depuis nges bo boo an ndefna wallu calel ke kene andoona yee ten ɓisiidu mene Cheikh Sarr affaire cekin kene den ndef na mbaala coono fe de njegna fop yaasam suñu borom a rafda den tiyaaba faaga o xet ke nqetna meen tamit yaasam suñu boroom a dimle in bo i maadin baan in fop kono a fi'angaan in fop fati fi d'abord fatihatul kitab i mbi fallahi fo foofu fukki lixlaas ak benn we andoona yee den adwu i nqenana den roog a yirmaden a ɓisa den no mbeel bubulaan arjana we yoqna men a miiñ meen bo i mbaag a mbi'ana kaaga kili nana aca bismillahi rahmani rahim صل على سيدنا محمد للفاتح لما ألهم الحرم ما سبق الناس إلى آخر الأخر والهادي إلى صراط المستقيم على آله قائد ولا أسيم اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما ألهم والهادي ما سبق الناس إلى آخر الأخر والهادي إلى صراط المستقيم على آله حق حدر ولا أسيم اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما ألهم والهادي ما سبق الناس إلى آخر الأخر والهادي إلى صراط المستقيم على آله حق حدر ولا أسيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جمع خير ورثت تراك مجد مجد كبار كما أمرنا بكتاب شيء bokkul coronavirus bi jërë ngeen jëf waay sama gars yi ñu ni ñëpp waay ah man de duma amati ñaareel xaw ma ko bëgg nag man doy na benn bi rek doy na salaamaaleykum wa rahmatullah ngeen merci borom situ nak bëggoon naa nga ñaanal leen borom situ anji? ci ñi fi teew nii nga xamante ñi fi ñëw nii waa Zambro TV waa Zambro TV ak waa Sar TV yi nga xamante ne waaw wu nañ uniquement hmm. ngir lii ñëw vraiment amuñu seen fay surtout ñun Sar TV amuñu hmm. seen fay ñoom parce que suñuy naataango lañ. waaw ñu bàyyi seen lépp. Hmm. ñu yëgal leen ko ñu ñëw teewee suñu bés loolu ñun dañ ciy kontaan. voilà léegi kon bisimilahi jonn hmm. rahmaani jonn hmm. rahimi jonn ku ne jonn ngeen ne jonn ku newul jonn ngeen ne jonn bisimilahi teew rahmaani teew rahimi teew ku teew ngeen teew ku teewul ngeen teew lépp loo xam ne teew na si dëkk bi ci wërsëg ci sutura ak ci kaaranga ci àdduna man ak yéen ñëpp yal nañ ci teew ni nga xamante ni noonu la Buurutani teew ci mbedd yal na ngeen dem ba ami télé bokk mu nekk télé ñun ñëpp ñu bokk ci ba ñu invité la ci nag maa bañ añ di jaaxaaloo ak yow maa dootuma dem télé benn télé rek laa am. Ah. benn télé muy MTV MTV. Ah. kooku nag doon ko seetaan maa ko seetaan man ko asalaamaaleykum. ok. Ah, waa Sak TV euh, na meeke na Grand Yoff i kay neeke ngenoofa Pape Sarr ref élément Sak TV Pape Sarr simnaxum waa i njaaɓaang mhm. euh, Pape Sarr ginnaaw ye fay mbi'na ɗeetitna we Sak TV no ndogu nge de organiser a ha wola in nawa sac fa fandogu wede organize na hannde vraiment sac tv moom mhm. euh, wagamo lay mention spéciale mhm. na den parce ce que ga'umana groupe feeke fo sitneke no ga' no groupe mhm. parce que xane a nanoroyo a njoforoyo to no saaho kandi kan dimle'ra maaga surtout no wallu social o kiina jeganga ten hew a ona ye oxu ga'oona damtaani hew xooxum o kiina jeganga ten i nakad oxu ga'oona fiyaan i nakad xooxum oxey nana andir maak we sax fi ke o garanga meeke sa tv ankiro xeeke mak, maak ankiro xeeke refo ndeɓ to laya aussi eh, président in fee mhm. Abdoulaye Mbodj mhm. gàcce mhm. parce que vraiment mhm. euh, mi groupe boga président là, vraiment euh, jega fula fa fayda nu vraiment contanama à pa pa, nous aussi gidma nous, parce que natango in nu ndef sur le terrain à tout moment hmm? euh, parce que miye sesara la xamay zamro tv Hanaga, mhm. affaire ke kam contente na paxa paax mhm. kam jeg ten fierté mhm. yam xane o xewid o xoyit yobe, yooɓe to message nene lasen ka aussi surtout uh, we ndef nanu sit tv tv ke mhm. kam lay ka dene fat indamro, ndamro mhm. ndef leng mhm. mboga yaay mboga faap ndame keke o xuru gaona war sakum soma wagu ten o leng wage ñam ten war sak no kendof ku ka anna yene an xoof rek yene eno ten xane pap sar refa nga sur le terrain zamro refe sur le terrain zamro waga no xoya lay ne pap sar ah ciam maga o vidéo wala i photo wala i lakas fi lakas a nga to pape sar kaga a nano ten mhm. fata halate o feeta feetanga mhm. zamro warano wagan kaga mhm. i ndamro i ndamro ino mbogu yaay ino mbogu faap vraiment keke ka fel a fela fel bilahi mm, aca gaye kon nega aga tiɗu ah. ha pape sar ref élément sar tv Eh, a voda sur le terrain a den kon teni ngeni ɗen ala in ke anno ga na halam eh, ni wesa tv im bay ngar meke ɗetiɗ eh, wesa tv mbi foden dog spécial to ngid me cheikh sar mhm. parce que yakara me cheikh sar mhm. te muju tax sa boy ngar meke kon no pap sar ha na cheikh sar waaw cheikh sar moom mhm. na na rog parce que wax deug a refa o kiino xa jege kete xaƴala la kiin sesar ke yene na xoxum kaga yene u fop mhm. a refo kiino yelefu o mhm. waago yoon fo xu ga'oona mhm. mi de wax dëgg affaire calel chute keeke ten ɓekaxam teen to xane ku xa andoona yee waaganum teen rek bo jego ken fiya teen neek grâce à ten kon kam ñaananan ten andu sit neek te andoona ga ten wetun abeka inden in ten mhm. mete bugna te fad hedam roga fadandin maaga mhm. o xu xa andoona ye weta sit aussi mhm. gorgorlooxa ten to roogata heɗam roga fadandin me andoona ga maaga bugo wala te ko njorto of sax parce que keke ka fel keke a refa ref ka andoona ga eh, hannde itolore jamanu fa anonaga mhm. image leng warate wagomo mhm. refate ɗat mhm. par ce que keki a eh, manque amen roga atanidina in kon fat i ndamin respecté in i respecté in ande ino jegun quoi in jeganuna qoox in waaw kon merci beaucoup to i ngidma cheikh sar aussi eh, jarajëf ok ginnaaw yewa i mbinon ndogunge bo pare njiyo bo pare instant nak i keyna eh, fin fe quoi ngar nege remerciement le i key nege fa madame mm, Sékou Thiaré Eh, madame se ginaaw ye 20 million donge bo pare bo genawe anjiyo bo pare ha wola in e ke buguma leya nun ten ref que nu mhm. saɗakino no ke nu njala mhm. parce que o kiino kiin jegiro diiña refa ngeer na ke o jala mm -hmm. a newanga a mayanga ten o sutura oxta mhm. nu njeg teen fula njeg teen fayda mhm. kaaga wagumo leye nuun mhm. teen no ka yoqna o ndik e wiin we nju'ooxa bo ngeñ nu yera bo ngeñ axa contanam jegaam o contane maako maako maako maak e, parce que ke taxna lay jegaam o ɗaay nan neke moxo sogano jega jega teen occasion tamit parce que fop fo o fa seex sa a fel'angan télé xa'a o tees waagiran parce que ka saq mhm. o ndeɓandong ɓisi yeno o mbiñ o lakas mais tegadoox fop ale jegee probléme waaga o teesoxoy meen um mhm. jaɓno yoon fo ten tamit nananin parce que buganuma bog ne ko ga'axam mhm. axa e kon ɗof sax a ɓisanit'angaam o ten xan damanino ten xan damanino ten parce que ke ta ñoowna famille o weeke tamit a ngara ndef wiin faax e angara ay yaadoha mhm. a mbaxtana fami mhm. ndala a ndamano bagage ke fof daal vraiment contanam bo waagiimo lay teen mayu daal wax deg a mhm. refa ngeerna tamit ñaanana den deno aussi de saɗakino a ande keke ref aar aaro rek so xaaga fu dernier mot of dernier mot es ten ref que a ah, ino euh, Waasa TV moom ñaanana den rek ci kaw ci kanam lo me guimawe sal tv ano gimɓe zambro tv ɓe zambro tv mom ono ceedera kim mm. wala ngel ngaɗa ɓe zambro tv mm. ah xanu mbugu ah, o gima en rek en gima ah a imboga ya imboga no mm-hmm. nono zambo tv ilamta kinoki mur ma ñowtay <laughs> <laughs> eneza mbo inyana nanun mhm. imboga yai imboga fap eneza mhm. mbo tv ilamta kinokin mul manyotai wow, wow. Eh. <laughs> aca kon madame thiare teni i ngenoge ɗoy neke xanne a rena a fiya remerciement um aussi eh, to a gidma la anno ka a accompagne an na mbaale fop i a gidma fop i anno ka tewɗam meeke kon madame sekou diare i ke i ñokamo njal to content na wo eh. o kores tamit mm -hmm wax dëgg waaginuma ña ñako gibal hmm. roog buge tooñ seeku caare kiino koor seeku jega ñaan kor ngooni ñoowe ndab de ndaw naye roog buge tooñ seeku caare kiino koor seeku jega ñaan hmm. kor ngooni ñoowe ndab de ndaw naye hein a vraiment a fela a fela a fela contanam trop contanam hmm. aha yo merci beaucoup gay nekagiti ɗo